asalaamaaleykum gars yi bégg naa leen bàyyi ni jàmm man maa ngi jàmm ba alhamdulilah tey dama leen indil benn application bu am solo ci seen téléphone application clavier 3D maanaam benn application boo xam ne clavier la mais da ngay jël photo wala gif nga def ko ci arrière plan clavier bi application bi naa leen woon nan ngeen télécharger application bi balaa ñuy commencer bu fàtte like vidéo bi lu am solo ci seen bi tamit bu leen fàtte abonné activer cloche de notification yi am doole léegi nañuy dem application bi moo nekk nii boo dikkee da ngay boss ok oke. Munt bossé ok mu nga tan clavier bi ngay def sa téléphone léegi ngén tan clavier néon led moy application bi legi boko tané dina ouvrir application bi legi nga dem ci thème bo tem thème nga tan thème bi ngay def ci sa téléphone amna thème bari yéné xol ban thème ngeen ci def legi ñun ñu tan ben thème buñ ci def legi ñu tan thème bi léegi boo taanee thème bi nga yokk vitesse thème bi ñu def ko 100 après ñu def obtenir thème léegi boo bësee obtenir thème mu ni thème appliqué après ñu def retour léegi boo defee retour après nga ñëw ci ma photo mooy fi ngay defee photo ci arrière plan clavier bi léegi ñu dem ci ma photo léegi ngeen coché personnaliser fond ngeen ko fa coché après ngeen mu indi leen seen galerie ngeen def autoriser boo defee autoriser pare mu yóbbu la sa galerie après ngeen choisir galerie léegi bu ngeen choisir bu ngeen choisir galerie dina leen indi photo yi nekk seen téléphone après ngeen tànn benn photo bi ngeen def ci arrière plan vidéo bi li ñu tànn photo bi léegi bu ñu ko tànnee ñu régler photo bi après ñu def appliquer léegi bu ñu defee appliquer fii dangay ngay cocher fond boo ko kosee après nga kose tamit fond boo ko kosee tamit nga def ko O boo ko defee O après nga def appliquer boo ko defee appliquer nga dem ci réglage paramètre boo demee ci paramètre nga dem ci clavier ngeen yokku taille bi ba 79 wala 80 léegi boo dikkee nga dem ci deuxième bi mu def marche verticale après ngeen ñëw ci ngeen def ko 60 wala 70 legi après ngeen ngeen def retour legi bo defee retour nga ñew ci fim def afficher nga gil sa loxo ba ci suuf fim def afficher le nombre manam day afficher comme nombre yi comme numéro yi fi ngay bindé numéro ngeen afficher ko gisoo mom la lay expliquer ni afficher le nombre gisoo nombre yi mo nek ni après ngeen def j'ai compris legi bo defee j'ai compris ñu def retour après ngeen ñew ci langue fi ngay changer langue application bu la neex nga def ko arabe anglais français wala benen langue bu la neex legi da ngay dindi fi nga cocher ni après ñen dem tan français wala arab bu fekkee da nga bëgg arab arab mo nekk ni bu fekkee français tamit français moo nekk nii ngeen sé français légui bo leen sé français bu leen nexé mën ngeen dindi anglais bi après ngeen def retour légui ñu testé clavier bi nu muy mel fi ngay def tapé gisoo boo ko tesee clavier bi moo nekk nii nii lay mel boo ko kiiwee par def sa photo ci arrière plan bi photo bi moo nekk ci ginnaaw vidéo bi te fi mi ngi dem nii léegi nan ngay télécharger application bi ci Google Play Store lien bi mu ngi ci description vidéo bi léegi dañuy dem ouvrir Google Play Store léegi boo demee ci Google Play Store da ngay dem ci barre de recherche nga tapé clavier led neo maanaam nga tapé neo led clavier néon led koy clavier léegi boo ko tàppee nga def recherche boo defee recherche application bi moo nekk nii ngeen installé ko ouvrir ko gisoo application bi am na plus de cinq cent mille cinq cent soixante mille avis maanaam ñu wax seen avis ci application bi am na plus de tamit cinquante millions de téléchargement maanaam ñi télécharge application bi ci àdduna bi mën nañ cinquante millions li moo nekkoon vidéo tey bi bu fekkee vidéo bi neex na la bul fàtte abonné activer cloche de notification yi partager vidéo yi pour chaîne bi gën a am doole kon gaay ba beneen vidéo incha